asalaamaaleykum ñu ngi leen yéen ñëpp di leen wax ne que vraiment kontaan nañu ci seen yëf mais li ma leen mën a wax xamal daal mooy bu ñu fi tardé opposition mooñ ñu fi tardé la parce que ñëpp question boobu ñu posé. non non question yooyu la ma leen wax heure mënaguñu def dara parce que waa opposition jubóowuñu parce que normalement pour nekk candidat il faut que benn groupe moom lay parrainé pour nga nekk candidat léegi ñoom ñoo tardé ñun tardé wuñu ñoom ñoo dàqaragul si ñoom seen biir. ndax groupe bu nekk mun na présenter benn candidat léegi groupe bi nag bu fekkee nag dañu war a présenter candidat te ñenn yi ñoom seen ba am na yeneen candidat yoo xam ne que groupe bi jëlu leen cautionné wu leen loolu moo tax réew fii parce que affaire bi il faut ñu wax nit ñi li xew ci dëkk bi. dama ne lool loo loolu ñu wax amul dañu ñëw éviter que ay règlement intérieur Assemblée nationale ak constitution bi article 54 ci constitution bi dafay wax ni alinéa 2 nit mënul nekk ministre nekk député. ñu gis ko fii ci nguur benn bokk yaakaar muy Ablaye Daoud Diallo o consort comme loi bi daf ko tere man ma ñëw évoqué ko ni loi bi nee na nit mënul nekk député nekk ministre benn fonction ma maanaam il faut ngeen démission wala président de la République tas li nga xam mooy bi ñu gën dem di waxtaan ñaareel bi boo jëlee tey réglementaire assemblée nationale article 51 dafay wax ne député mi ngi tàmbali suur bi nga xamante ni conseil constitutionnel joxe na résultat ci la député tàmbali kon ñoom boobu la xamoon ni warul ñu mën a ñëw seese lan moo tax boobu léegi ñu bàyyi leen si ci ci gouvernement bi remplacé wuñ leen beneen bi boo jëlee règlement intérieur assemblée article 86 dafay wax si bulletin yi bil ñeenti bulletin lu tudd si règlement bi mais bu ñu amee juróom-benn candidat juróomi candidat mais loolu corps règlement intérieur assemblée nationale pare warul loolu. loolu conseil constitutionnel moo mën a joxe li nga xam ne mooy avis si loolu lii mooy blocage bi lii pexe mooy. Macky Sall tas gouvernement bi benn ñaareel bi mooy conséquence nal wax ba xam bulletin yi yeneen yi des nan la war a mel parce que wote wuñ ko woon programme wuñ ko woon loolu mooy li nga xam mooy réalité. ñun pare nañ bi ak dañuy wax lu leen neex comme liñ tàmm wax quoi day comme liñ tàmm wax rek dañuy wax lu leen neex ñun bu ñu euh, bi ñu yegsee fekk na pare nañ ba pare. donc euh, nu wone est de depuis longtemps mais eux ils ils tombent d'accord ils n'ont trouver une solution. ah lu ma ci xam ñoom ñoo ne benn bloc lañ bloc boo xam ne ba tey jii nii mënuñ d'accord na ko population yi laaj ñooñu. parce que buñ ko dencee boo léegi rek mel ne comme ñu ñoo tardé loo nit ñi bi si ñoom la nekk ñoom ñoo juboogul tant que jubóoguñu nag fu na fii assemblée la tant que jubóoguñu on est obligé ñu xaar ba ñoom ñu ñoom ñu en ñu def seen li ñu war def bu ko defee nag léegi après ñu doog a génne parce que candidat yi on ñu ñu ñu présenté leen. par une structure de l'Assemblée. non loolu moom xam nga ministre buy démissionné xam nga quelquefois aussi les gens dañuy wax loo xam ne mënut a nekk article bi ñuy wax xanaa nit ki balaa muy démissionné dafa jël fonction yow yow yow jëloo ko fonction ñu la démissionnaire amul da ngay jël fonction ba pare nga doog a démissionné loolu la ñuy wax. mais waxuñu ne léegi bu fekkee ne waa ji dafa démissionné ba pare ñu xëy yoon mënul nekk quelquefois ñoom nit ñi dañuy logique bu ñu bu fekkee nekk léegi def nañu ba pare léegi ku mu neex nga démissionné. mais tant que installé wuñu installation installé guñu assemblée bi ba nit di nit di xanaa balaa ngay démissionné ci dara dañ lay dañ lay installé ba pare installé guñu dañu war a dégg mënuñu leen ñàkk installé ba pare ñu ne démissionné leen loolu amul ñoom daal ñoo paregul ñoom ñoo rek seen ay détails nañ leen bàyyi ak seen i détails bu ñu pare bu ñu pare ñun ñu ngi leen di xaar wasalaam jërëjëf accusation opposition ci nguur laa dëgg di moins si majorité parce que dafa mel ni opposition dafa wax ni ñu nekk ministre dans le gouvernement en exercice ñu élire leen député dañu war a démissionner d' abord balaa ñuy siéger bon loolu ñoom xam nañu lu constitution bi di wax tout le monde a rappelé ça depuis dëmb ñu ngi ci waxtaan ñu ngi ci échanger di rappeler que constitution bu lu mu wax mooy bu nekkoon ni député bi bu nekk député ba pare ñu nommé ko ministre dafa war a démissionner balaa ñu koy installer mais su fekkee ne ministre bi la ñu euh, élire député il faut mu xaar ba ñu installer l'Assemblée nationale bu ñu ko installer l'Assemblée nationale moom mu am huit jours pour tànn loolu mooy situation bu ñu nekk tey léegi nag sur le plan pratique technicalité démission boobu sax su fekkee tànn na bay euh, assemblée bi nekk ministre technicalité bi mooy da ngay def sa lettre de démission adressée au président de l'Assemblée nationale et qui une fois reçu informe immédiatement le président de la République mais fu ñu toll nii kan mooy président de l'Assemblée nationale amul donc il est impossible de démissionner xanaa démission verbale te loolu c'est pas valide. ah mën na am waaye man na tardé mën na yéex parce que ñun bu ñu duggee ci salle bi te li nga xam moom la ñu constat may defuñu ko dañuy bloqué séance bi parce que ñun nekkutoon. waaw li ma doon xam ne mooy dama ñëw wan ni Macky Sall moo ma kidnappé woon jàpp ma yóbbu ma dama seene woon. ma ñëw ne askan wi din nañ sama sama seene googu noonu am naa liberté si Assemblée nationale loolu moo tax ma yëkkatoon sama ñaar loxo seene boobu noonu pour wax ne man fii tey jii xanaa taxawaay bi ma continue nekkoon ma continuer ko ba askan wi jëlee fi ma Sall ba troisième mandat bi ñuy rëm rëmee mu bañ fi am loolu bokk na si li tax ma retiré woon sax sama candidat parce que man nekkoon naa candidat ci candidat poste président Assemblée nationale waaye bi ma demee ba xam ni askan li ñuy xaar si ñun askan yi seen su ñun mooy booloo nekk benn ma ni naa def intérêt askan mooy gën sama intérêt c'est la rupture sama candidat bàyyi li nga xamante ni mooy wàllu candidat Lamine Thiam bi président Abdoulaye Wade di yor mu jiitu. ma ne leen yéen waa Yewwi am leen benn candidat ba mun a ñàkk bu ngeen ko amee nag bu ñu demee ba nga xam ne deuxième tour am na su boobaa ñu booloo muy nekk benn waaye la ma jàpp mooy benn candidat opposition ma waroon a am depuis démbale maa ngi si liggéey mais man mais man bu ñëpp defoon ni man man bu ñëpp defoon ni man Cheikh Abdou Bara Dolly mi yor mbooloo 109 358 voix laa jox coalition yi 7 pour cent Yewwi pour cent Wallu jox juróom-ñaar député Touba. loolu bu ma ko defee am li si métti ak expérience bu ma nangoo retirer sama candidat intérêt askan wi moo tax ma di ko def. non aj mënul nekk aj mënul nekk dañuy tàmbali xanaa kay dinañ wut solution munuñ munuñ munuñ xaarloo population yi nag moom loolu moom mënul nekk moom parce que jubóowuñ ñuy xaarloo population yi c'est pas possible on va pas le faire. mun nañ xaar tuuti mais munuñ leen xaarloo nag ba tey moom dina dañuy def suñu def installation bi incha allah. yaakaar nga ne du leen seen bopp yàlla yàlla dogalal boppam ndax ki yàllay fal yàlla pare na ko ba pare te ku ci ñaaw yow yaa si ñaawal sa bopp donc nañ góorgóorlu mériter la confiance des sénégalais parce que vraiment sénégalais bi baax nañu delloo ko njukkal ndax sonn na mooy xëy dimanche dem voté ji jox ñu confiance kon ñun gënuñu leen gënuñu leen dara. donc nañ leen jox cër jox leen gëdd donc loolu rek la merci beaucoup